mu nekk loo xamante ni lu rafet la suñu papa Doudou Yaye Katy tamit Ama Dia tuddee na ko drapeau mu nekk hommage yoo xamante nekk na hommage yu rafet di ko ñaanal moom tamit euh, li ci kanam moom dàq li nga xamante ni moom la jot a weesu ndax promoteur la bu yoo xamante ni day jàppale xale yi balaa loolu nag ma bàyyi ah, kii Ardo mu nuyoo ñu doo ko wéyal waxtaan wi Ardo nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay di wax onze billah bisimilah yi nawaan yàllaaw sant borom bi julli ci yonentam bi tedd bi sant borom Touba bam ñu booleek Baye Aziz ba léegi lépp lu bon dañu ko bàyyi yàlla nañ ci sax ba keroog ñu ñu yóbbu Touba tuubi ruubi naa sant nañ la faal dootuñu ko baax ñu digal ñu topp Bamba ba seytaane bu ñu koy yàqal ñu bala fa yaay suñu ndey di suñu bàyyi buñ la tooñee rek ne la baal ñu faal yàlla tere xel xalaatul di la tooñ kon mu weere sant ak sikar moom nga ñu digal wante fecc bi da nga koy tere jërëjëfe borom Touba jaram maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp gis ngeen mbokk yi ni mu dugg si am na solo mais Ardo dafa am loo xamante ni dafa jaaxal amateur yi parce que léegi boo yi kuñ ci tëggal sa premier grand combat dafa mel ni da ngay xaw a yenu bés bi su mu nee dafa mel ni da ngay xaw a yenu bés bi ndax defe naa ni bi mooy sa premier grand combat démb ñu gis la ban heure lañ la woon. waaw convocation bi mu ngi nekkoon trois heures et demie. trois heures et nga dugg si stade. stade xaw ma sax. Euh, euh, defe naa ne yow bi nga bi nga bi ngay ñëw di dugg ci stade bi defe naa ne 6 heures mooy 10 minutes xaw ma minutes est-ce que xam nga ne CNG desoo fa dara. waaw <laughs> ah, sant yàlla rek ñun moom yaa ngi gën xam tolloo guñu fu ñuy amee wala fu ñuy ñàkkee waa dafa baaxoon sax ñuy wax lu mbër bu ndaw di di fayeeku mais comme que euh, droit la xaw ma c'est une droit protégé moo tax daal duñ ci wax. Eh, foofu amuñu fa dara sax lu nu ñuy def suñu làmb moo ëpp loolu yàlla xam na ko. mais mu nga dugg si stade bi euh, ñëpp yaakaar ne mbër mu mag mooy dugg si aatu gàllaa ci bari na euh, durant bi nga taxaw ci buntu stade bi rek def nga fa plus de dix minutes du sotteeku ñu tàllal perkaal yi lépp nga nekk di jël say def say bain ñu boot la dugg la ci diggi géew bi gàllaa jooyu fu mu jógee. non gars la rek man moom dewuma digguma wante gaa yi may taxaw daal ku si mel ni Cheikh Jili xam nga ko bu baax borom Louga waaw ak daal jàmm ak sama gaa yi daal ñoom Omar Cheikh Sarr ñoom Ali Ibra Belende Junior xam nga tooguñu daal ñoom ñëpp dañuy am seen làmb bopp sax mais xam nga rek moo ayee day mel ni ñoom la ñoom ñoo ayee daal loolu yëpp yéene la woon rek yéene la boo xoolee li ñuy indi maa ngi nii ba ma koy tuur sànq sa caméraman bi gis na ma yu bëri maa ngi koy tuur nii jotuma ko sax utiliser waaw mais làmb la rek làmb moom day ñëwee ak nu nekk quoi di encourager sama sama ki ma doon jonganteel muy Mbagnick Kaïré di ko bu baax di ko féliciter di ko féliciter mhm, di encourager sama gars yi bu baax a baax a baax. démb nga bi nga dugg see ci ci digg géew bi. def say def say def say préparation da nga dem sa cumukaay rek ñu ne la Ada kaay tuus nga ñëw nag macha bi nga ñëwee tuus nga tuus bu neex yëngal nga stade bi ñëpp ñu fa ñëwoon seen xool sedd na ci ci ci ambiance bi nga ànd ci stade bi parce que dañoo gis beneen ardo boo xamante nii ci maturité entraînement physique lépp tuus bi est-ce que wàcc nga koo wala da nga lu lu yàggoon la wala lu bees loo xam te ne da nga koo créé. ñun liñ bëggoon tuus sax tuusuñu ko yàlla xam na ko. yàlla xam na ko ndax amuñu woon temps pour répétition ak yooyu ndax suñu premier grand combat la mais ku ma topp mba topp mbapat di nga xam ne kii moom bu amee temps pour tous. waaw day def lu neex quoi mais di di di di remercier sama kii hmm, sama batteur di kam ak ñoom Liwi Ndiago ak ñoom kii ku si mel ni Daabo ñu sonn si làmb ji lañ waaw di leen ak ñoom tum xam nga kurim léeg juum ay ñoom Ardo Junior ñëpp kuluhum waaw Cheikh Sarr dootuma ko gërëm ndax sama papa la. que temps bi nga am ci làmb ji dëgg concentré wu est que am nga ko parce que mooy li ma lay wax sànq bi nga ñëwee dugg da nga teg rek ñu ne la kaay tuus nga ñëw tuus gisuñu la nga jaabante comme Mbagnick ni mu ko doon defee di daw di yëngal supporter am gisuñu la nga def ko ci ci ci làmb ji benn yoon dañ la ko aaye wala boog gàllaa ci ñoo bëri ba tollu lool loolu non temps rek temps rek temps rek temps lañ amul woon quoi parce que comme ni nga ko waxee dañoo yéex a dugg si làmb ji loolu la woon. est-ce que li la yàqal. waaw làmb la rek xam nga chaque jour ak li xew quoi hmm, mooy loolu. san nañ da nga manque manque de concentration parce que bi nga ñëwee ci digg-géew bi amuloo temps wu jàng sa adversaire. ñoo ngi lay sot yaa ngi takk fas yaa ngi wërale amuloo temps moom lépp mooy am temps di la xool fan la la war a jaar naka la war a bëgg ak yow est-ce que mën na xeex ak yow temps boobu amuloo ko. waaw waaw dëgg la mooy li mooy li nga wax rek mooy li ma wax tamit muy naajee ñëw bi loolu yëpp day feeñ quoi loolu yëpp tamit amuñu ko woon temps bi mooy loolu waaw di encourager di ko di ko féliciter bu baax. abi sifflé nga taxaw di ko déglu mu taxaw di la di ko di la déglu lan ma waraloon temps boobu nga may ko ko lu yàgg danga nga bëggoon xaar ba xam day xeex wala la andi. waaw ah, parce que parce que nit tamit des fois da ngay da nga koy jàng moom si boppam liñ jotoon jàng si moom rek lañ appliqué foofu ndax comme nga amuñu temps pour observer ko si làmb ji observer nañ ay ay kàddoom yu mujjee kii ba ne gars yi libéré nañ ko waaw libération boobu lañ doon xaar après gisuñu lu ñu xam. ñu ñëw exposé wu tijjil ko bëre bi pour mu bëre quoi. mais bi ngeen jàkkaarloo li bi noonu wax gis nga ko sa diggante yow ak moom. bi ñu jàkkaarloo non il voulait montrer day wane ni toujours que ni moom mi ngi ñëw mais bu ma ko xaaree du ñëw waaw man tamit ma ñëw exposé wu tijji bëre bi ba mu sës bil ko porte yëpp. waaw jaayu daal xam nga rek te yooyu yëfu xale la rek waaw. dañoo ci bay da nga ci biir bëre bi. parce que jël na sa tànk nga rëcc mu takk la nga rëcc nga naagu ne kii mënatumaa daan. waaw bokk na ci bokk na ci daal bokk na ci dama def foo xale dama juum dëgg-dëgg maa ngi jégalu ñëpp nag waaw tax am na lu ma ci jàngee lu bari ni làmb du caaxaan làmb du foo encore daal waaw maa ngi tubb bu baax aw ma sax lu ma wax ah. léegi deuxième fois bi mu jëlaatee sa tànk. ban kele nga doon tànte foofu parce que ñu ci bàyyi nee nañ donc doon ciseau wala ban kele nga doon tenter waaw loolu loolu ñu ma yàgg a seetaan ñu ma yàgg a seetaan xam na ni dama koy bëre quoi sama loolu sama sama bëre la amaana tey ba sa ñëw ma ma perte si rek mais def naa si lu nekk loolu noonu si boppam. lan nga ko doon dama ko doon ciseau mais ciseau bi moo ñorul quoi. dafa ciseau bi dafa sori te fi mu catu tànk bi la jël bu doon dafa jël ci kaw dafa jël ci digg bi daf ko mais ngoobu carrément. waaw amaana dina réussir mais fi mu ko jël la quoi fi mu ko jël la bu ma kiiwee tamit day koy mën a bàyyi rek comme ni mu def bàyyi ko jaww jàpp si ndig bi noonu rek la quoi waaw di jégaluwaat ñëpp daal. yoon dañoo gis nga lu yàgg lan la woon dafa sonnoon wala dafa manqué doole wala lan moo tax nga sëgg ci suuf lu yàgg te daanu la. non manqué wul doole de manqué wul doole mais man xam naa ni xam naa ni man. billaay wallaay ñi ma doon jàppanteel ak li ma liggéey si combat bi man xam naa ni daju ko parce que combat bi jaralu ko loolu loolu xam naa ko bu baax a baax. combat ko loolu. non non jaralu ko woon loolu mënu ko woon jaral loolu quoi parce que nekku nekkuma woon favori. boo xoolee nekkuma woon favori si làmb ji amaana bañ jàppante si lañ ma commencé sax jox favori ak ñi ma xam dëgg dëgg dëgg mais coono bi ma daj si làmb non man xam naa ni kii mënuma yëngal quoi mënuma yëngal man maa tay ngeen jàppante yaag moom kan nga sant ni mu ëpp doole. moom dama koy dama koy bu dee di ngeen ko seeti ngeen ngeen laaj ko ko. non man yow laa laaj man kay bu ma ko demee ci moom dinaa ko laaj yaag moom ko ëpp doole. mais mooy li ma wax ni. billaay wallaay taalaay mënuma woon yëngal yàlla xam na ni ku dul moom sax ku dul moom sax mënuma woon yëngal. su ma doon xitiit sa diggante yow ak moom ci xeex bi parce que dañ doon wax mbañ moo la dàq xeex. non non Mbagnick mënu mu bagaar ni déranger quoi bu boo xam ne tegul si yoon. mën mën na ko quoi mën na ko mais man man mooy lool ku ku xool ni ma ñëwee nga xam ne maanaam du du nii du nii la ñuy bëree quoi du nii la ñuy. bi nga ñëw andi woon nga ndab non man ba léegi nii nii nii nii nii nii buñ sëggaatoon dama koy daan barki sëñ Fallou loolu la man loolu laay loolu laay kii quoi. loolu man loolu la xam quoi. loolu làmb démb kon boog lan moo lan nga jàpp ne moo ko yàq. waaw naajee ñëw bi rek. temps ñëw bi amuñu temps quoi amuñu temps di si jéggalu ñëpp waaw ñëpp amateur. jàngat ban jàngat nga ci jële ban jàngat waaw jàngat mooy maanaam bés bés bu nekk ak bésam quoi. waaw te bés dañ koy jox dañ koy topp ba mu sës comme bëre niñ koy toppee ba mu sës. waaw loolu la rek. waaw ñu si nag nee nañu Ardo ay xale lay àndal. Mhm. na ci li yàq la ba. ay xale lay àndal wante ay mag ñoo koy ngemb waaw ay xale rek lañu gis mais ay mag ñu ngi sama ginnaaw de man jooyuma benn yoon mag waaye yàlla xam na ko su mel ni ay Cheikh Omar Mbaye ay Jibi Kayta ñooñu xam nga bu baax ñu lay wax ay ndaanaan lañ. te bu dee àdduna rek xam nañ ko ba mu jeex bu dee sport tamit xam nañ ko ba mu jeex làmb mënul weesu lu dul sport parce que jongante la foofu góor la foofu jàmbaar la waaw mënul weesu lu dul sport xam nga ay ñoom sama grand ku si mel ni xaadim naar kooku amul lu ko aar jaralul waaw di profiter occasion di sant bu baax sëñ Hamsa Mbàkke mu sëñ Seex Say ba ñu amee gàllankoor si loxo amul luñ si dajul amul luñ si dajul moom si boppam daf ma booleeg benn taalibeem yóbbu ma ba Casamance amul lum si dajul waaw ku si mel ni Cheikh Omar Mbaye xaadim naar amul lum si dajul tamit waaw billaay wallaay taalaay ñooñ dañuy sonn si man quoi dañuy sonn si man moo tax. di nga ñëw ci gërëm bi mais bi nga bi nga bëgg léegi démb nga bëgg te yaa ngi toog. Euh, di di waxtaan ak say am di jàmm ak say mbokk da ngay jëlaat avance wala da ngay toog xaar. toog xaar non làmbay suñu métier démb maa ngi koy wax ma Dia làmb nii nii daf ma toroxal ndax sama tool laa jaay sama toolu ñàmbi sama toolu ñàmbi laa bay ba desul lu dul maanaam trois mois ma ma ma waaw ma fayeeku war a mën a jaay mais noonu laa ko jaayee lépp en gros noonu pour rek. ñaata ñaata xaalis nga def ci combat bi. ñaata xaalis yàlla xam na ni mënuma ko compter mais mi bu dul deux millions ëpp na ko quoi du yàlla rek ma tiim tamit moo tax euh, benn sant dat yi dat yi xam nga léegi gars yi sax nee nañ balaa ñoo jël komba dañ dañuy am date ba pare. Ah, waaw ndax mënoo ñëw di préparer le da ngay dem ba pare da ngay dem ba pare lépp li ngay def ñu joxaat la beneen dat mais loolu tamit ñun la su maanaam loolu tamit mooy loolu daal kenn xamul daal mais tamit ku ñu si mën a jàppale tamit ñu jël xam nga beneen yoon quoi yàlla xam na ni suba ma dem bëri. dégg naa ñu ne maatoon Manick Kayré sax ma bëri. non Manick Kayré moom yaa ngi moom tàqalikoo ngeen xanaa ci kanam non tàqalikoo nag. daal na ko di bu ko daanee nag ci kanam fi mu toll moom. non lool mënul nekk mën ngeen koo bëgg mais Jacob dañ ko doon tëggaat moom ak Jacob dañ ko doon tëggaat. dañ ko tëgg suba wala guddi euh, nag damaa dégg benn combat. dañuy tëgg ko bu ñëwoon tey dañuy bëri fii si suñu karte fii toroxal ko. non mbañ leen daan dee ngeen bëgg a li ma la bu ñëwoon tey ñu war ne ko ñoo ko mën ñoo ko ëpp doole. ni bu ñëwoon tey ñu bëree tey dañ koy duma. ma mbañ mënu leen daan dee ngeen bëgg a jël revanche. ma la wax ñun ñoo ko mën xëy na yàllaa ñëw rek mais duñ moroomam. mais dama gis beneen booy beneen booy boo xamante ni nii euh, euh, ni mu def stade yaakaar naa mbaal ma moom defe naa léegi moo ko moom kenn dootu ko séddoo ak moom. lan moom. stade Iba hmm. ma. Ah. gars yi xam nañ li mbaal ma moom defe naa ne moom moo ko moom. waaw xajatu fa dégg nga sa waay nee na xajatul mbaal ma. mbaal ma si tabu nga moo ko moom. sa digganteeg Siteu bu Ngor. waaw li gars wax rek mbaal ba gars ñoo fa jiitu gars yi foofu. wu ci Siteu bu Ngor laa wax lan nga wax Siteu bu Ngor. Siteu bu Ngor waaw na liggéey rek ñun boo xoolee man ñi ma bëreel. ñi ma bëreel mais nag léegi léegi làmm nag du ab maas ak dabante la parce que boo xoolee euh, Laurent bi mu bëreeg Bou Siteu benn combat la def Bou def neuf combats xaw ma dix combats jël ko bëreeg moom te Siteu nag buñ buñ waxante rek yaa ak moom fi mu toll nii làmm du ko dàq. non na kii rek na góorgóorlu rek. Hmm, na góorgóorlu rek yàlla baax na yàlla kenn yàlla waxul kenn dara. parce que nit da ngay xool sa kanam quoi donte ni daanu na mais nañ ma jox sama moroom nañ ma jox booyu tàng yi quoi. ma jox si booyu tàng yi. booyu saf yi ma wane sama bopp parce que dama doon passé examen xam nga ñëw di biddanti noonu la demee quoi. laa ma mooy mooy mooy li li ma wax dama doon passé examen ñëw biddanti. léegi damay léegi dama bëgg dama bëgg. mais tamit nañ ma jox si booy safi quoi sama bo booy safi bëri. yaakaar soo daanoo da nga war a xool lu xaw a nooy nga làmb ju suqaliku jugaat doo ko mën a dem xool leneen. Hmm, dafa defaru la defaru la waaw mais man moom lu nooy moom noonu parce que dama dama toll si wane sama bopp quoi comme ni ma koy waxee. surtout bu nga nga ne na liggéeyaat te si temps ngi liggéey léegi ñan ñoo fi nekk nga xam te pare nañ wala ñoo ngi liggéey. bari na bari na. ku si li ma que ñëpp ay moomam ngeen. lim bàyyi bari na na bari na bari ma jox Jackson Jackson Jackson bu géejawaay war na ma mën may sens. ñu neexal ko. waaw Jackson moom du bëre yow parce que Mbagnick sax nee na Jackson ñëw gannaaw moo la andi di jàpp ci komba bi te daan na la na Jackson ñëw ngeen bëre Jackson moom yaa moom du ngeen laale. <laughs> wax ma keneen rek ma mën day wax lu ko neex rek kii nii nu mu tudd. nu mu yow amuloo leen loo ko wax ndax Mbagnick ba jëflante ngeen. daan na la yow waxal leneen rek moom am na droit laaj koo ne parce que dëkk na fi sax Zos. Diène Kairé Diène Kairé amul combat Jackson amul combat léegi lool combat Ardo Ardo comédie wu de kan. Ah, man maa teg loolu. Jackson Diène kay rek. Jackson moom Jackson xoolu Zos sax bay xool Diène kii kon mbañ ko kii kon nu mu tuddeeti. Diène xoolu Zos bay xool ay kii nag yow tamit nag loolu du laam waxal leneen waxal yow sa bopp man yow laay waxal man xoolu seetu ma. non Jackson seetu ma mbañ kay rek seetu ma Diène wax kan nga war a bëri fi mu toll nii. man. waaw waaw noonu la demee quoi nañ ma jox lu xam nga samay moroom quoi. booyu waaw nañ ma jox si booy safi quoi noonu la demee kon boo amoon kàddu yu mujj nga tàggatoo. kàddu yu mujj ca eh, kàddu jégalu la rek di jégalu samay samay nit. mel ni caatu ngéwél nit ah. caatu ngéwél nga doon a wax léegi de. caatu ngéwél moom ndax ba ma ko dalee tëkku boobu mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi en forme quoi. Ah. dafa nekk bés foofu. maanaam ma mun a ma rakk ji <laughs> da ngay tas daal mais moom moo ko teree neex de caatu ngéwél combat bu neex la mais ba ma ko dalee topp boobu boobu neexoon na boobu neexoon na Jaxal <laughs> moom Baba Jaxal Baba Jaxal loolu du ko dax bu jógee waa sam-sam jóg sëñ Fallou yàlla kenn daal ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñëpp santaat ñëpp daal waaw di jégalu ñëpp ni ni lépp lépp du kenn lépp lépp bi yéen ñëpp mention spéciale taxaw ngeen ma ni ñuy taxawoo ni nit di taxawee mbokkam daal taxaw ngeen ma ko waaw sama grand da sagana ngañ da sagana barki sëñ Fallou ci bi kayta xam nga Cheikh Omar mbay waaw ma fayam danaan sax boo ma tuddee ñu bàyyante xam naa après rek ngeen dox ñu jub fexe ñu jubo xam naa banama moom ndax mënuma koo ñàkk bañ a tudd xam nga Pape ñaang monsieur le maire xam nga Lat Diop yàlla xam na ko komba bi dañ ma taxaw ba ma ruus moo waral sax xoola ma bëggoon wane sama bopp prouvé mais nag res Euh, le le euh, nuñ ko tubaab di waxee le reste à venir quoi waaw le mieux reste à venir waaw c'est ça quoi xam nga ñu takkaat jaaj ji rek waaw nekkaat si liñ nekkoon indi lu raw lu ñu lu ñu daan indi ko quoi loolu rek lañ leen mën a fayee mais amul dara lu leen mën a wax lu dul jégalu Mansour tamit maa ngi koy gërëm Mansour suñu moroom la lu ñuy wut la ñuy wut si buntu àdduna am la nekk suñu buntu àdduna lañ nekk mais day bàyyi ay occupation am ñëw di sonn ndax quartier bi. mais nag war na ko ndax papam ku baax la moom mooy président wu unité 2 waaw kon moom bu si bu lu si dox rek papam la ko doxal quoi waaw ñu ngi leen di siyaar ñëpp famille bi yëpp Jibi Kayta pap bi yaayam ñu ngi koy siyaar ak Alima jabaram bu baax a baax ay ñoom mbaawo Omar Ndiaye Omar bu Garga Mbossé ku si mel ni May Ndiaye xam nga Daba Seck mii nii ñu ngi koy siyaar di siyaar jëkkëram moom mi ko bàyyi terew ko benn yoon bu ne si Ardo laa jëm rek mooy loolu da koy bàyyi mu teew. xam nga mu nekk ku sonn si ñun di siyaar ñëpp ay ñoom Omar Goudia bi xam nga waaw gaa yëpp waaw ay ñoom xam nga tous tasar <laughs> aw ma fayam yàlla xam na ko moom bu fi nekkul sax waaw moom moom Ardo la wax dëgg fa yàlla léppam Ardo la waaw moom moom dama koy masaw bu baax dafa sonn quoi. waaw di siyaar sama yaay di ko wax tamit bon fête si feet bi ñu jugee yàlla xam ne boobu ba léegi déggante ndax dama rus amul lu mu dajul si komba bi ma xam ne kadoom rek laa ko waroon jox si fête de mère bi mais gis nga ma ñëw foowee seen komba mais dootul amati maa leen ko wax incha allah ñu ngi jéggalu ñëpp di gërëm waa wasaare waaw wasaare SBT média waaw yéen moom yéen a fi nekkal mbër yu ndaw yi quoi. waaw yéen a fi nekkal mbër yu ndaw yi te kenn gënu leen xam làmb yéen yu ndaw yi ñooy làmb comme lu ñuy wax rek promoteurs yi nañ jàppalewaat mbër yu ndaw yi promoteurs yi nañ jàppalewaat mbër yu ndaw yi buñ jàppale mbër yu ndaw yi làmb lañ jàppale ndax euh, mbër yu mag yi am nañ lu ñuy am ba pare donte ni maanaam mooy loolu quoi yéene lañ leen ñu am teguñu leen bët teguñu leen dara jàppale mbër bu ndaw bokk na si jaamu yàlla fi mu toll nii de waaw ku njëkk a yuuxu da ragal rek mais sonn nañ ñun lu nekk suñ kaw dal ku si mel ni Liss Ndiago xool liñ ko teg Liss Ndiago est-ce que moo doon damm sées mais lépp si moom la teg waat xam nga ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tamit ñàkk leen waxal rek barki sëñ Fallou mbaake ñun boo xoolee tey suñu combat am na yoo xam ne bëgguma ko sax di wax mais CNG ñun dañ leen wóolu de wóolu nañ leen mais tamit ñu xoolaat yamale ñëpp rek waaw ñun yamalewaat ñëpp xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ génnul fii waaw buñ sañoon tamit xam nga lépp day rafet te tamit lépp rafet na mais nañ gën a xoolaat gën a yamale waar affaire yi xam nga mooy loolu muy gën a nice ñu ngi jégalu na ñëpp waaw man moom lépp luñ ma koleel rek man la ma tardé man la ma maa kii mais tamit man tamit maa doon dox ñu ñu ñu këf sa këf li ma yor dagg ko sànni ko man la tamit xam nga te ñun ñëpp ñoo far na lépp rafet rek ñu ngi jégalu waa Sénégal yëpp ku ma tuddul ñu xam ne waaw. xel bi mooy fatu mais xool yi daj na ñëpp yàlla xam na ko ndax gis nañ bu baax dañuy sonnee su ñun ñu limee rek encore une fois dañuy juum waaw Babacar bu Garga mboose moom tamit muy dëkk yi ku sonn si ñun ay ñoom maam jaaray xam nga. tamit moo tax euh, benn sant dat yi dat yi xam nga léegi gars yi sax nee nañ balaa ñoo jël combat dañ dañuy am date ba pare. Ah, waaw ndax waaw mënoo ñëw di préparer le neuf. da ngay dem ba pare dem ba pare lépp li ngay def ñu joxaat la beneen dat mais loolu tamit ñun la su maanaam loolu tamit mooy loolu daal kenn xamul daal mais tamit ku ñu si mën a jàppale tamit ñu jël xam nga beneen yoon quoi yàlla xam na ni suba ma dem bëri. dégg naa ñu ne maatoon Manick Kairé sax ma bëri. non Manick Kairé moom yaa moom tàqalikoo ngeen xanaa ci kanam non tàqalikoo moo tax ma ne moom. non loolu mënul nekk mën ngeen koo bëgg mais Jacob dañ ko doon tëggaat moom ak Jacob dañ ko doon tëggaat. dañ ko tëgg suba wala guddi euh, nag damaa dégg benn combat. tey dañuy tëgg comme bu ñëwoon tey dañuy bëri fii si suñu quartier fii toroxal ko. non man leen daan mu ngeen bëgg li ma la bu ñëwoon tey ñu war ne ko ñoo ko mën ñoo ko ëpp doole. micro bi ni bu ñëwoon tey ñu bëree tey dañ koy duma. mais man mënu leen daan dem ngeen bëgg a jël revanche. ko mën xëy na yàllaa ñëw rek mais duñ moroomam. mais dama gis beneen booy beneen booy boo xamante ni nii euh, euh, ni mu def stade yaakaar naa mbaal ma moom defe naa léegi moo ko moom kenn dootu ko séddoo ak moom. lan moom. stade Iba Mar. Hmm. mbaal ma. gaa yi xam na li may wax mbaal ma moom defe naa ne moom moo ko moom. waaw xajatu fa dégg nga sa waay na xajatul mbaal ma. mbaal ma si tabu nga moo ko moom. sa digganteeg Siteu bu Ngor. waaw li gars wax rek mbaal ba gars ñoo fa jiitu gars yi foofu. sita Siteu ci Siteu bu Ngor laa wax lan nga wax Siteu bu Ngor. Siteu bu Ngor waaw na liggéey rek ñun boo xoolee man ñi ma bëreel. ñi ma bëreel mais nag léegi léegi làmm nag du ab maas ak dabante la parce que boo xoolee euh, Laurent bi mu bëreeg buu Siteu benn combat la def Bou Siteu def neuf combats xaw ma dix combats jël ko bëreeg moom. te Siteu nag buñ buñ waxante rek yaa ak moom fi mu toll nii làmm du ko dàq. non na kii rek na góorgóorlu rek. Hmm, na yàlla baax na yàlla kenn yàlla waxul kenn dara. parce que nit da ngay xool sa kanam quoi donte ni daanu na mais nañ ma jox sama morom nañ ma jox booyu tàng yi quoi. ma jox si booyu tàng yi. booyu saf yi ma wane sama bopp parce que dama doon passé examen xam nga ñëw di yi noonu la demee quoi. làmb ji nga cee biddanti. mooy mooy mooy li ma li ma wax dama doon passé examen ñëw biddanti. léegi damay léegi dama bëgg dama bëgg. mais tamit nañ ma jox si booy safi quoi. sama bo booy safi bëri. yaakaar soo daanoo da nga war a xool lu xaw a nooy nga làmb ju suqaliku jugaat doo ko mën a dem xool leneen. Hmm, dafa defaru la defaru la waaw. mais man moom lu nooy moom noonu. parce que dama dama toll si wane sama bopp quoi comme ni ma koy waxee. surtout bu nga nga ne na liggéeyaat te si temps ngi liggéey léegi ñan ñoo fi nekk nga xam te ne nañ wala ñoo ngi liggéey. Hmm. bari na bari na. parce que ñëpp ay moomam ngeen. waaw non na bari na na ñu mu mën a lim. ma jox Jackson Jackson Jackson bu géejawaay war na ma mën may sens. ñu neexal ko. waaw Jackson moom du bëre ak yow parce que Mbagnick sax nee na Jackson ñëw gannaaw moo la andi di jàpp ci komba bi te daan na la na Jackson ñëw ngeen bëre Jackson moom yaa moom du ngeen laale. <laughs> wax ma ma mën a yegg Jackson moom du ngeen bëre. day wax lu koy neex rek kii nii nu mu tudd. nu mu tudd yow amuloo leen loo ko wax ndax Mbagnick ba ngeen. daan na la yow waxal leneen rek moom am na droit laaj koo ne parce que dëkk na fi sax Zos. Diène Kairé Diène Kairé amul combat Jackson amul combat léegi lool combat Ardo ah, Ardo comédie wu de kan. Ah, man maa tëgg loolu. Jackson Diène kay rek. Jackson moom Jackson xoolu Zos sax bay xool Diène kii kon mbañ ko kii kon nu mu tuddeeti. Diène Diène xoolu Zos bay xool ay ay kii nag yow tamit nag du laam waxal waxal yow sa bopp man yow laay waxal man xool seetiwuma. non Jackson seetiwuma mbañ kay rek seetiwuma Diène yow laa wax kan nga war a bëri fi mu toll nii. man. waaw waaw noonu la demee quoi nañ ma jox lu xam nga samay morom quoi. booyu waaw nañ ma jox si booyu safi quoi kon boo amoon kàddu yu mujj nga tàggatoo. kàddu yu mujj ca eh, kàddu jégalu la rek di jégalu samay samay nit. mel ni caatu ngéwél nga doon bëgg a wax di ah. caatu ngéwél nga doon léegi de. caatu ngéwél caatu ngéwél moom ndax ba ma ko dalee tëkku boobu mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi en forme quoi. waaw ah. dafa nekk bés foofu. maanaam ma mun a ma rakk ji <laughs> da ngay tas daal mais moom moo ko teree neex de caatu ngéwél combat bu neex la mais ba ma ko dalee topp boobu neexoon na boobu neexoon na quoi. <laughs> non mais Baba Jaxal moom Baba Jaxal loolu làmb du ko dax. bu jógee waa Sam Sam jóg. sëñ yàlla kenn. daal ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp ñu gërëm ñëpp di santaat ñëpp daal waaw di jégalu ñëpp ni ni lépp lépp du kenn lépp lépp bi yéen ñëpp mention spéciale taxaw ngeen ma ni ñuy taxawoo ni nit di taxawee mbokkam daal taxaw ngeen ma ko waaw sama grand da sagana ngañ da sagana barki sëñ Fallou ci bi kayta xam nga Cheikh Omar mbay waaw ma fayam danaan sax boo ma tuddee ñu bàyyante xam naa après rek ngeen dox ñu jub fexe ñu jubo xam naa banama moom ndax mënuma koo ñàkk bañ a tudd xam nga Pape Niang monsieur le maire xam nga Lat Diop yàlla xam na ko komba bii dañ ma taxaw ba ma rus moo waral sax xoola ma bëggoon wane sama bopp prouvé res Euh, le euh, ko tubaab di waxee le quoi waaw le mieux venir waaw c'est ça xam nga ñu takkaat jaaj ji rek waaw nekkaat si liñ nekkoon indi lu raw lu ñu lu ñu daan indi quoi loolu rek lañ leen mën a fayee mais amul dara lu leen mën a wax lu dul jégalu Mansour tamit maa ngi koy gërëm Mansour suñu moroom la lu ñuy wut la ñuy wut si buntu àdduna am la nekk suñu buntu àdduna lañ nekk mais day bàyyi ay occupation am ñëw di sonn ndax quartier bi. mais nag war na ko ndax papam ku baax la moom mooy président wu unité de waaw kon moom bu si bu lu si dox rek papam la ko doxal quoi waaw ñu ngi leen di siyaar ñëpp famille bi yëpp Jibi Kayta pap bi yaayam ñu ngi koy siyaar ak Alima jabaram bu baax a baax ay ñoom mbaawo Omar Ndiaye Omar bu Garga Mbossé ku si mel ni May Ndiaye xam nga Daba Seck mii nii ñu ngi koy siyaar di siyaar jëkkëram moom mi ko bàyyi terew ko benn yoon bu ne si Ardo laa jëm rek mooy loolu da koy bàyyi mu teew. xam nga mu nekk ku sonn si ñun di ñëpp ay ñoom Omar Goudia bi xam nga waaw gaa yëpp waaw ay ñoom xam nga tous tasar <laughs> aw ma fayam yàlla xam na ko moom bu fi nekkul sax waaw moom moom Ardo la dëgg fa yàlla léppam Ardo la waaw moom moom dama koy masaw bu baax dafa sonn quoi. waaw di siyaar sama yaay di ko wax tamit bon fête si feet bi ñu jugee yàlla xam ne boobu ba léegi déggante ndax dama rus amul lum dajul si komba bi ma xam ne kadoom rek laa ko waroon jox si fête de mère bi mais gis nga ma ñëw foowee seen combat mais dootul amati maa leen ko wax incha allah ñu ngi jéggalu ñëpp di gërëm waa wasaare waaw wasaare SBT média waaw yéen moom yéen a fi nekkal mbër yu ndaw yi quoi. waa yéen a fi nekkal mbër yu ndaw yi te kenn gënu leen xam làmb yéen a fi nekkal làmb ndax mbër yu ndaw yi ñooy làmb comme lu ñuy wax rek promoteurs yi nañ jàppalewaat mbër yu ndaw yi promoteurs yi nañ jàppalewaat mbër yu ndaw yi buñ jàppale mbër yu ndaw yi làmb lañ jàppale ndax mbër yu mag yi am nañ lu ñuy am ba pare donte ni maanaam mooy loolu quoi yéene lañ leen ñu am teguñu leen bët ñu leen dara mais jàppale mbër bu ndaw bokk na si jaamu yàlla fi mu toll nii de waaw ku njëkk a yuuxu da ragal rek mais sonn nañ ñun lu nekk suñ kaw dal ku si mel ni Liss Ndiago xool liñ ko teg Liss Ndiago est-ce que moo doon damm sées mais lépp si moom la tegwaat xam nga ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tamit ñàkk leen waxal rek barki sëñ Fallou mbaake ñun boo xoolee tey suñu combat am na yoo xam ne bëgguma ko sax di wax mais CNG ñun dañ leen wóolu de wóolu nañ leen mais tamit ñu xoolaat yamale ñëpp rek waaw yan yamalewaat ñëpp xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ génnul fii waaw buñ sañoon tamit xam nga lépp day rafet te tamit lépp rafet na mais nañ gën a xoolaat gën a yamale waar affaire yi xam nga mooy loolu muy gën a nice ñu ngi jégalu nag ñëpp waaw man moom lépp luñ ma koleel rek man la maa tardé man la ma maa kii mais tamit man tamit maa doon dox ñu ñu ñu këf këf li ma yor dagg ko sànni ko man la tamit xam nga te ñun ñëpp ñoo far na lépp rafet rek ñu ngi jégalu waa Sénégal yëpp ku ma tuddul ñu xam ne waaw. xel bi mooy fatu mais xool yi daj na ñëpp yàlla xam na ko ndax gis nañ bu baax dañuy sonnee si ñun ñu limee rek encore une fois dañuy juum waaw Babacar bu Garga Mbossé moom tamit muy dëkk yi tëng ku sonn si ñun la ay ñoom maam jaaray xam nga. sama maam sama papa sama maam tamit sama maam bu jigéen sama maam bu góor ñu leen di ñaanal ñu yàgg fi fekkee lépp waaw di waa Thiès waa Géro. waa Sokone waaw ku si mel ni xam nga waa Gero waa Sokone waa Mbour sànq lañ ñibbi yàlla xam na ko fii lañ yendu waa Thiès fii lañ yendu sànq lañ ñibbi xam nga ak waa waa Diofior ñu leen di siyaar bu wér ak waa Fadial waa Joal Fadiouth tamit léegi lañ ñibbi waa faaju xam nga ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen wax nañ gën a jàppaat àdduna du benn bés suñu borom sax liggéey ko su benn bés kon dara xëyut sotti nañ nekkaat takkaat jaaj yi rek nekkaat si gërëm waa Touba waa Xayra Fall allahu akbar sëñ làmp sëñ làmp ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax maam Ngunda Fall ñu koy siyaar bu baax a baax a baax a baax di siyaar taalibeem yëpp waaw sëñ Fallou mi ma doon woo sëñ Fallou Aziz Fall léegi la ma doon woo waaw di wax bu mu ko jàppee dara ndax Baye Fall amul Baye Fall du ñàkk dara lu mu wut da ko am te noonu la demee. nga daanu mel ni yaa daan loolu rek ndam la waaw di wax yàlla xeebuñu benn yoon moom suñu borom yàlla na xeeb te dolli waaw di di wax koor gi ñu jëm tamit ñëwagul mais ñu ngi si baalu àq ñëpp di wax gars yi ñu waajal ndigal li muy ndogul yi di ko wax bépp Baay Faal rek luhum waaw di jégluwaat yëpp si temps yi ak euh, ku ñu limut may njaay asu njaay xam nga yaayam bàjjanu gox tamit waaw bàjjanu gox mère Maguette mbay waaw moom dafa mel ni sax mooy suñu chef de quartier di nuyuwaale tamit chef de quartier bi Pa Gassama ñëpp rek waaw ah. hmm? hmm? Kayta ak sama waaye kiri billaahi ñoom tamit jàpp nañ si ay ñoom ñang baala giro seras jooy na ba stade bi taa xam nga mooy loolu ñu ngi jégalu daal ñu ngi cuub bu baax ñu ngi tuub xam na ay xale lañ rek dañoo juum. waaw Cheikh Sarr nga bàyyi jooy ak waa waañ bi waa sa waa groupe waa waa waa nopp sa jëkkër amul lu ñu sonneewul waaw aawa yi yi waa nopp sa jëkkër waaw ñaareel bu fi dof dof lu ba dugg fi dañ lay rëkk da ngeen ko xam fii ñaareel du fi traîner ndax waa nopp sa jëkkër ñoom ñëpp ay aawa lañ est-ce que yéen a waa xale jigéen yi romb fii di sarme góor yi nañ xam fu ñuy taxaw fii koñu aawa yi la waa nopp sa jëkkër ñooy bomb ndax ñoom ñooy ñooy natt seen nat ñoom ñooy natt seen natt ñëw jox waaw baay Fall bi ne ko yow loo bëgg yàlla nay jàmm kon maa leen solal mbubbu avocat noonu la demee di gërëm ñëpp kuy bëggee Ardo képp kuy bëggee Ardo rek am amet bu Tafa Mbër tamit maa ngi koy bëggee di bëggee wàllu Tafa Mbër bu baax lu taxawal combat bi si la bokkoon waaw lii tamit euh, lañ doon ñaan yàlla suñu borom defal nañu ko passé si jàmm ak salaam ñu préparé li nekk suñ kanam di jéggalu si kàddu yu bari yi nag bu baax a baax a baax xam nga ñëpp ay ñoom waaw ay ñoom Tafa ay ñoom Xaadim xam nga ñëpp kuluhum kulim juum bilaahi si li ma jógee tayewul dama kontaan ndax boobu ba léegi dem ba tey boo gisee gis nga gars yi demuñu fenn ñu fi toog xam nga di ko waxtaanee di ma ñaax di ma encouragé xam nga te tamit loolu mooy àdduna quoi waaw di ma sawu ñëpp. waaw incha allah beneen yoon mooy dàq bu soobee yàlla. gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmm ci jàmmaarloo ci wasaare làmb di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ne mbañik ñoo ngi ñëw seet si la waxtaan ak yow jaa ngeen jëf ba beneen.